lubalub koppar la wala càcc wala ñàkk déggoo képp waaye li leer ba leer mooy kalaatma am na ci biir kuréel gi ëmb tailleur yi ci Sénégal maanaam association des maîtres tailleurs du Sénégal li waral lu ni mel ci période mbas mi nguur daal leen dénk marché un million de mask ngir daal di rekk dekkal li nga xamante ne mooy consommer locale bi waaye mel na ni ci noonu ñenn ci ñi nga xamante ne ñooy membre yi gisuñu ci seen bopp kii di Mbacke ñaan ak ki ñuy woowee Dadi ñaar ñooñule di naqar lu lu ni mel ci turu ñeneen ñi. mbas dafa am mi amee ndimbal lañ ko mën a tuddee ndax fekk ay téer yoo xamante ni ñawuñu kenn demul kenn dikkul nga mën a jël marché bu toll noonu jox leen ko bu ko neexoon ni ma koy waxee day dem Chine commande ko wala Inde wala États-Unis wala France fu mën a doon indi ñu séddale ko mais chaque jour da ngay dégg ñu naan état du jàppale doomu réewam day day jox ñeneen day jox ñeneen mais tey dafa jël jox doomu réewam ne leen ñaw leen masque yi yëkkati un million masque jox ko association bi nga xam ne ci laa bokk muy ADESMAT association des maîtres tailleurs association du benn nit mënu koo def ñaar nit mënu ko def mbooloo moo koy def te it euh, bu ñu demee ba état mën leen a ñeme ba mën leen a jox marché bu toll noonu ñoom ñoo toog ci tele daan ne am nañ dix mille membres dix mille membres rek boo toogee nga wax ko loolu ab directeur APDA mi ngi toog Pam Ndaw man na ci seede euh, Fatou Abdou Ndiaye toog na moo leen doon introsé ñu koy expliqué mën na ci seede. seen secrétaire général Khadim Song Bel Aliou Couture moo ne mën nañ dix membre loolu moo tax état mën a jël lu toll noonu jox leen ko mais bu leen ko joxee ñu yemale ko ci juróomi nit bu bu bu quatre cent mille masques ñëwee dañuy ñaw a ñaw a ñaw ba doyal doogu woo gars yi ne leen ñëw leen am nañ am nañ nangam masque séddale leen la ci des buñ ko jëlee di ko jëlaat di ko yóbbu ci marché yi di ko fa ñawloo wat ay deux cent ay cent cinquante ak cent franc te membre ADESMAD yi duñ ci xam dara duñ ci yëg dara beneen bi ci des cellule bi nekk Touba toll nañ ci presque cent et quelques membres woowu ñu leen bu dara ñëwee bu euh, mu mu concernant ADESMAT mu am dakaar am Touba nañ woo waa Touba ne leen ñun kat am nañ fi lii kaay leen ñu toog ñëw seen président ñëw seen secrétaire seen secrétaire général ñëw seen trésorier ñëw xaalis bi fii la toll masque yi nii la toll organisation bi seen organisation na xool nu mu ko organiser jour tel lañ ko war a livrer man lii laa xam ci association waaye association boo xamante ni ñeenti nit ñetti nit. muy président bi Tafa Fall Bara Couture secrétaire général Khadim Song Bel Arir Couture Pape Seck relation extérieure ak Mamour Thiam trésorier xaalis bi 300 millions yi jaarul ci loxo trésorier lu ko gën a garaaw amul 300 millions yom jaarul ci loxo trésorier séddalewul xaalis gisul fa xaalis di jógee te loolu lu ko gën a lu ko gën a doy waar dafa amul. ADES man ni muy doxee rafetul jaaduwul. moo tax ñun ñu jug te ñu yàgg ñu ko def moo tax tey ñu jug ne kat lii xew ci masque yi duñ ko bàyyi mu jàll nii looloo waral ñun ñu dajaloo ñun suñu bopp ñun dañu am benn président boo xam ne si euh, li muy doxal kenn xamu ko parce que dafa jël euh, mat def ko loo mel ne daf ko donn mel ne moom daal lu mu donn la ci ndeyam ak baayam un million de masques ñun mënuñu koo yëg jotuñu ci suñu wàll ne lii nag dañoo bëgg mu leer parce que lii duñ ko bàyyi mu dem masque yi na leer sinon buñ ko mënta leeral dinañ leen yóbbu si yoon ñu leeral ko ñoom nag nanguwuñ koo leeral ñun nag li def mooy yóbbu leen si yoon buñ demee si yoon ñoom dinañ leeral masque yi nan la demee parce que masque yi rek moo fi xew lan lan fi mën a wax parce que moo mujj mais li xew li nga xam ne man dund naa ko fa mu gën a garaaw loolu moo tax tey ñu ne ñun duñ ko baax munuñu laa joxe benn masque bu nekk trois cent francs nga toog ne woote dugg ci réunion bi ne 200 lañ ma ko joxe gars yi ne ah 200 day tuuti ci ñun duñ mën a duñ mën a fay 200 duñ ko mën a ñëwee 200 parce que duñu arrangé nga toogaat ne 250 la gars yi ñëw un mois et quelque am kenn ko dem ba xam ne lii trois 300 la dikk teg ko ci biir groupe bi ne li leen joxe masque yi président bi dëkk trois 300 lañ leen ko joxe ñu moom clairement ñu génne ko ko ci group pour bañ mu leeral dañ koo génne ci groupe bi carrément groupe whatsapp bi pour bañ mu expliquer. ci beneen téléphone la dugal ay ojo ñu envoyé ko ci biir groupe ba pour waa groupe bi mën a xam ne kii 300 lañ ko joxe masque yi après ci lay leeral man ay kàddoom laay lay wax de waxuma la dama damaa dégg moom moo leeral ne 300 lañ ko ko joxee mais li lan moo taxoon nanguwul wax ne 300 la dafa bëggoon a génn 50 50 francs yi denc ko pour après ay carton yu ñu jënd ay paquetage ay emballage ak tamit ay impôts yu état di fay état mbas mi tegu ci kenn impôt te loolu lu gën lu gën a doy waar loolu amul. état taxaw teggil ñëpp ay impôt ak ay fisc nga taxaw ne état moom may topp ay impôt moo tax ma génn 18 millions wala lu teg tegee ko de côté parce que lu mu yàgg-yàgg danañ fëgg sama bunt loolu lu ko gën a garaaw amul ñu war a xam ne nag état moom am na ñu nekk ci ginnaaw ci biir réew mi ñoo xamante ne liñ boo leen doon compter mënuñu laa génneel 200 membres yu mat te ñu ngi wër di diaboliser ne 10 000 membres lañ di créer ay de créer ay projet wala ay yeneen yoo xam ne ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ci seen biir ñoom kese kese kese la yem ñom ñoy tukki ñoom ñooy ñaw masque ñom ñoy def lepp ñom juroom bu dé président bi tukki na ci ADESMAT cinq fois bu dé secrétaire général tukki na ci ADESMAT trois fois bu dé euh, euh, euh, organisation fan la dem commissaire au compte fan la dem ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom daal ñoom juróom ñoom kii relation extérieure mi nga xamante ni moom mooy jiite loolu amul fu mu demut li ma bëgg mooy mu leeral masque yi fan la jaar ak fan la dugg ak lan moo tax ñu joxuñu ci masque yi man loolu may li nga xam ne moom laa bëgg a xam te nag sama droit la ma xam ko lépp lu ma si yoon may dinaa ko def pour xam ko bu fekkoon tey bu tànnee ñëpp ku nekk benn masque lay ñëw ñu jox ku nekk benn masque su ko defee affaire yi mais boo ko yëgul mënoo cee xam dara loolu mooy suñu problème mais li ma lay waxal daal mooy ñun moom lii pare nan jusqu'au bu duñ ci bàyyi virgule lépp incha allahu rabbi dina leer. association la wala loo moom la wala sa alalu bopp la te toog na ne Bara Couture toog na ne Bara moom moo appuyé Adesmat ba mu mën a gagné marché bi parce que Adesmat kese kese mënul woon gagné marché bi signature am ak atelier am la garantie pour ma gagné marché bi mais loolu c'est faux. ñun mënuñoo am récépissé ba pare am GIE boo xam ne association la GIE boo xamante ni mën naa gagné bépp marché te loolu moo taxoon ñu créé ko léegi ñu ne léegi moom moom moo mën a garanti association pour mu gagné marché bi pour lan dañ koy topp nag ci yoon bu fekkee nag yoon gis na ne dafa am ñoom dañuy laaj ay récépissé ba pare di di ko doxalee nu leen neex ñoom ñu ciy bàyyi loolu ñun nit dañuy xam ëllëg kon association yi nekk Sénégal yëpp kon dañuy xam ne kon du jarati ñun ñu ket association ñu koy créé Sénégal. te ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ñu gën koo xam ci Moustapha Fall mooy seen jiit moom mi le mooy boroom Bara Couture moom mi le nag daal di nay weddi bépp tuuma ba tëdd ci suuf dal di xamle it ni lépp lu ñu koy jiiñ defu ci lenn te ñooñee sax di ko ko jiiñ dañoo bokkul sax ci biir association bi bu ñu sukkandikoo ci li mu wax waaye moom it xamal nañu ni ñi nga xamante ne ñooy teg loole ci deram bi dina leen porter plainte ndaxte kat ñooñee li ñuy wax dara amu ci mu leen di jox dig daje ci altine fële ca mbaxane fa mu doone benn maanaam tribunal ngir ñu àtte dëgg bi te ku nekk xam fi mu féetee.